انتو بانينا وأكرم الأضياف بالترحيب وبالقراء والبشر والتقريب لا يصطدق للضيف منك الكلكل فإنه عما قريب يرحل دلتر الجني دلين ياتل دلين برندل دلين وان بيغم خركنم بوسا خول دي خات غير غنغنيو ndax gan kat bala yag mu ñibbi sëriñ tuuba nee na wa burra waalidayka warfoq bihima wa kun mubaadiran ilaa amrihima wantahi an jumlati maa qad nahayaak anhu li rabbika fa yazdaada ulaak fonkal sa ñaari waajur te ñeewante leen luñ la digal nga gaaw def ko luñ la tere nga gaaw bàyyi ko soo defee loolu da nga dolli ko ak kawe sëriñ tuuba nee na wa zur xiyaaral ulama wa saalihin waxdimhumu lillahi jalla kulla xiin del ziyaara boroom xam-xam yi ak gaay yu baax yi te di leen liggéeyal jamono bu te yàlla tax wa man araada alqurba min rabbil wara falyatluban shayqan wa yatlu suwara ku bëgg a jege yàlla na wut ab sëriñ tey jàng alquraan